asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñi nekk si biir réew mi ak ñi nekk si bitim réew ñoo ngi leen di nuyu eh, di leen massawu tamit ci li nga xamante ni moom moo dal tey ci réew mi comme ni ko sunu naataango yëpp waxee te noonu ñu ko waxee noonu la ko réew mi yépp waxee ndax bi mbir mi wàccee ba tey sénégalais yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew yëpp ñoo ngi woote.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 te ñii nga xamante ni tey jii ñoo topp processus électoral